ci waxin la mhm. ci doxin la mhm. ci xalaatin la mhm. bokk na ci li nga xamante ni mooy nit mooy nit nit te boo ko dee xool Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na moom mooy ki jëkk a civilisé ndaxte léppam ci sell la ko teg léppam ci sell la ko teg ah, moo waral fu mu toll ne ñu indi sangu farata ñu indi jàpp balaa ngaa julli ah ñu indi sellal sa diggante sama sa làmmiñ sax dafa war a sell ci kàddu yi nga xamante ni moom nga war a yëkkati ah yaakaar naa ni foofu ñu jigéen ñi ak ñu góor ñi jigéen ñi ni ko Abdou Salaam waxee ñu delluwaat ndokkeel leen ci weeru koor gi ndaxte wax nga dëgg ndaxte li ñuy jariñ ci weeru koor mhm. dafa bari dafa bari ci société bi lool kon jigéen ñi encore une fois soxna Asug ah gërëm nañu loolu ndaxte internet yi xam naa ni waaw dina am luñ ci luñ ci participer incha allah wax ci seen xalaat waaw ah Eva <laughs> loolu yaakaar naa en attendant bëgg naa après oustaz mhm. expliquer ñu tuuti mhm. xam nga liñ koy waxee père ñun ay ndaw lañu mhm. xëy na dañu roy ba dàq wala ñu dañuy topp comme ni ko Moussa di ba dàq waaw <laughs> na am ne dañoo roy ba dàq ndax dañuy dund ci jamono antique Moussa wax na ko léegi génération bi la ñuy topp di topp la nouvelle les nouvelles technologie gars yi développement bi et tout looloo ñu sonal ba tax na réere nañu mbir ci lu bëree bëri ci li nga xam ne moo jëm suñu diine ndax tey du parents yëpp tey ñooy toog jël seen i doom rawatina doom bu jigéen nga war ko jàngal lan mooy sunna wala lan mooy farata nga war ko jàngal lan la la diine wax lan la la diine sant ak lan la la diine tere mhm. te comme tey am nañu chance oustaz toog fii ci plateau bi te xam naa ne suñu moroomu jigéen yi bëri ñu ngi ñuy seetaan bëgg naa mu expliquer ñu wax ñu exactement li nga xam ne mooy comportement bi ñuy def te bàyyiwuñu ci xel mhm. mooy kat weer bi jotee ñu sellal mhm. bu weer bi jeexee ñu dellu ci la ñu nekkoon lan la ci diine ji wax ak lan mooy sunna ak farata ci biir loolu waaw loolu yaakaar naa ne sëñ Abdou dégg nga ko mooy kaddu gi nga xam ne boo déggee waxtaan bi ak melokaan yeeg roy dàq geek Ah, jikko yeeg yàq-yàqu yéek yi nga xamante ni am na ak defaru it mi ngi ci lan ngay jàng ci loolu. waaw xëj bekaay dañuy jiital rekk nuyoo te mooy asalaamualeykum ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni nit bu dee wax ak te nuyuwu leen bu leen ko tontu. Mm-hmm. ñu jiital ci nuyoo boobu nag këru diine yi nekk ci réew mi di ñaan. fenn fu nekk ka nekk ca bopp ba yàlla sàmm ko ndax yàlla sàmm leen mooy sàmm sunu mooy doon sunu njariñ mhm. jiital ci sunu xadara maam Cheikh Seydil Hadj Malick ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla dëgëral ko amin waaye ñaanal magam bu baax di Serigne Mountakha Mbacké bëgg-bëggam ak yeneen yëpp yàlla na ko yàlla defal amin waay noonu xalifa bi nekk fii ci Njaasaan di Cheikh al Bekaay ñaanal ko moom it naal yi bàyyeeg maam yi naaloon yàlla ko yàlla may kàttan bu ko mottalee noonu la ñuy ñaanalee waa kër ma Amari Ndak Seck ñaanalee ko noonu waa kër ma Abdallahi Niass ñaanalee ko noonu waa kër maam Limaamu Laay xam naa pour tontu rek ci gàttal eh, bala ma ko fàtte sax docteur sanq dama ko dégg mu wax wér-gi-yaram wi koor di def ci nit te yonent bi sallallahu dafa wax bi muy digle ko bi muy bi muy bi muy jàngal nit ñi koor ci baat bu gàtt la ko tënk dañuy suumu tasixu woor leen ngeen wér noonu la ko Moustapha tënkee dañuy woor leen rek ngeen wér te pour bañ ci dellu siwaat yaakaar naa docteur noonu la ko décortiquer waay bien sûr maanaam ah usine buy liggéey par année la am weer wu muy jël moom usine bi def arrêt bu defee arrêt ñu dugg ci biir usine bi nettoyé tiwo yi mm. nettoyé fil yi nettoyé waat xoolaat parce que loolu la lool la koor di def ci nit. mais malheureusement ñun Sénégal nag déggewuñ ko noonu. ñun li may wax ni Sénégal ngay gis ñun dañuy xëy woor dog jot diggante dog ak fajar li ñu tardé ci bëccëg bi la ñuy bëgg a rattrapé. moo tax bu ñu dogoo ba pare boo génnee ci mbedd mi koo taseel ba ngay ŋaan dañuy óbbali rek parce que li ñuy jël mooy bari dañuy duya duya duy ba koo taseel ah day ŋaan ŋàpp di fuddatu rek parce que mënatu ko. moo tax ku la ciy laaj ci la daan la waaw sëñ te xanaa tey ñaari raaka la munul def lu ëpp ñaari raaka boo ko fi nee ay juróom ñett léeg-léeg ma dégg kuy joxe la du jour naan tey ka ñeenti raaka lu ma ni billahi gaa yi duñ ko julli li nga jël dafa mën a ànd sëgg dangay ngay gal am na loo xam boo ko lekkee booy sëgg di gal dajale ñam yu bari Cheikh Malick moo ñu jàngal ni yonent bi sallallahu alayhi wa mësta boole ñaari ñam ci biiram inna taamay ni maa fi nee na Moustapha mosul lekk cere ak ceeb ci waxin. Uh-huh. ñun nag dog day jot comme ñun li ñu miin nga teg gerte caaf bu dee man ni may dogoo lekk gerte caaf naan kafe xëcc mburu mi diw ko ba mburu mi mburu mu toll ni sa xasab bi nga diw ko ba boo ko yëkkatee muy lang ah, mburu mi damm nga dagg ko ci digg bi teg genn wàll gi dóor bi ñëw dóoraat bi kaasu bisaab kaasu jinjeer pare ñu indi foot mais maara day taali uh-huh. sas loolu temps la de. non blocage day am <laughs> affaire yi bu ñu rek blocage am. loolu temps la blocage day am. bo bu boobaa nag wér giñ ciy séentu. Mhm. te yonent bi digle ko dootu ci am. mais gis nga bis bu la yàlla bis bu la yàlla boolee ci ñi nga xam ni dañu jàpp ni bu ñu wooree dañoo war a wér. Mhm. bu ñu ndogoo ndogoo lu oyof dog pare nañ ci bu fajaree ñu naan ndox mbaa lekk tàndarma mbaa naan tuuti. lu tàng pare nañ ci. Mhm. journée bi ñoo lay ñoo lay gën a yëngu. Mhm. te duñ yëg koor gis nga mhm. ku la dàqal lekk naan damay xëdd ak damay naan moo la gën a sonn ci bëccëgu weer ko parce que day ngaan di ñeb rek. pour dëggal loolu docteur doon wax. pour dellu si ci euh, question bi bala ma cee ñëw li Pape di wax. waaw gis nga Pape Sidi xam nga luy feebaru Sénégal. duñ demee yuur riir la ñuy demee. ñun Sénégal duñ demee yuur mais riir la ñuy demee. dara di xës rek nga toog xalaat ci noo ci war a def ñun amuñu boobu habitude ñun danaan teel rek ñu ne acca nee na teel ñu demandoo. <laughs> c'est sama benn rakk day wax ni seen mbooloom sénégalais boo leen gisee ñu taxaw nga bëgg leen rey taalal fii pétaal rek bu nee teel ñëppay wëlbatiku nga raw waaw du nu xalaat maanaam lii Cheikh Malick dafa toog benn bis mag ñi laaj ko ni ko Maodo nan nga tabaxe sa dund mu ni ci benn xaddis laa ko tabaxee inna min xusni islaamil mar tarkuhu ma la mu ni lii lii defar dundu as cam di wéral ngëmam mooy lu ko dul jariñ mu bàyyi ko uh-huh. ñun nag malheureusement dañuy am lu ñu dul jariñ mais dañ naan mënuma ko bàyyi ndax dafa xew uh-huh. te fekk du la jariñ nit ki li mu dund ren ba déwén buñ ne tey la 31 décembre ci waxin war na toog moom analyser man daaw premier janvier ba ren def audit def def audit waaw audité boppam audité boppam xam nga lu yonent bi wax uh-huh. dañu saa yoo tëddee bala ngaa ne la auditeel sa bopp ci journée bi man ba ma yeewoo kat man bay Pape Sidi def naa lii dem naa fi eh, lii de daganul lii de dafa xaraam lii de waruma lii de moo ma war lii laa waroon def lii waruma ko nga corriger say erreur bu subaa nga fas yéenee xëy yokk lu baax li wàññi lu bon. la ñuy wax prise de conscience. voilà mais ñun amuñu loolu. seriñ Touba Khadim Rasoul dafa wax ni. foo fekk koo xam ni bu tëddee rek nelaw maam borom Touba ne na ñaar rek a koy waral. nee na am yambar lool. mooy def fu mu tëddee nelaw war a bolom xol bu rafet. xam nga am yambar amul lu muy xalaat suba. moom jéemut a yanu dara. moo tax bu noppi laal suuf muy nelaw borom xol bu rafet it fanaanoowul kenn ba mu tee koo nelaw. buy tëdd di nelaw Xaadimu Rasuul ne foo fekk koo xam ne buy tëdd di nelaw ñaar yi rek. ko ñaar yooyu. ñaar yooyu rek ko ah. waral. léegi nag lu tax jigéen ñi bu weeru koor man man dama am question bu ma bëgg a poser sénégalais yi mooy est-ce que yàlla weeru koor rek la fiy ne. Hmm. déedéet Sénégal xam nga seen diine weeru koor ak dëj. délai Sénégal weeru koor ak dëj la. dëj premier jour. màggal gàmmu. bu kenn non màggal gàmmu sax resuñu eh, amee gars yaa ngi joxante rendez-vous ci màggal yeeg gàmmu. événement c'est vrai c'est vrai. Ah, xam nga xam nga nag suñ suñ problème mu réew mooy. bu dëgg xewee bu dëgg jotee bu ko nit waxee. maanaam dañ na i. yóbbu la ay i wax ji xam nga luy wax ji. mais ah, ba bu ca bokk. mais c'est vrai. Mm-hmm. mais ñun ñëpp xam nañ ni bëri na kuy dem gàmmu baa ngay dem màggal baa ngay dem beneen daje. mais sa coro nga fay àndal. baa ngeen fay daje. mais c'est vrai. lu dul benn du ñaar. li may wax ñi may seetaan te bokk ak man génération xam nañu ko. xëy na ay père Bekaay yi ay mag lañ mën nañ ci bañ a comprendre <laughs> mais yéen ñii ci des. père jamono bi la bokk di. waaw non mais <laughs> mais fi génération bi xëy na mën na ko bañ a comprendre mais ñun ñii ci des. Mhm. xam nañu li may wax moo am. xam nañu ni li may wax moo am. ah. إذا لم يكن نحو الخراب ودول على عظيم ليلى ولادة خصبتان إذا لم يكن نحو الحرام عدو على عظم عين الولادة حسبة alaaji baal ma tuuti rek ma tontu question Baye Bécaye bi ñu dikk foofu maanaam dina saf saf yonent yàlla Muhammad insha allah yaa ngi dégg baal ma tuuti rek maa ngi ñëw euh, li ñu jàpp ñun mooy bu weeru koor jotee yàlla maanaam day ñëw set day ñëw ci réew mi su weeru koor jeexee yàlla day dellu ñun Sénégal loolu lañ jàpp maa ngi wax sànq rek ni Sénégal ñoom pour ñoom yomal xiyam dañ ku ne day jël carte d'identité rek téye bu buñ dekkee yàlla ñun la waa Sénégal mu ni jàll leen ñun Sénégal pour ñun ñoo moom aljana ñun ñun pour ñun ñoo ko moom nationalité fay jàll léegi imaginer mhm.